man nag dama doon dem ci kër sëñ Ablaye Diop xaas di faju mais bi ma fay dem euh, gisuma ko mu faj kenn boolewuma ak moom ci internet bi daal laa ko gisee après ma commencé ko di ko suivre ma commencé di ko suivre di xool ay émission bi ñu ko doon invité télé di dégg ay waxam ma am ci moom yaakaar lool. am ci moom yaakaar lool te gisuma ko mu faj kenn boolewuma ak moom kenn yabaluma ci moom léegi ma jël numéro woote bi ma wootee ma am ku ma wuyu ma laaj ko nu may def ba ñëw foofu mu tegtal ma teg ma ci yoon ma ñëw ba foofu bi ma ñëwee bi ma bi ma ko woowee sax dafa ma ne dangay teel a ñëw parce que foofu rang bi dafa metti effectivement noonu la demee rang bi dafa metti da ngay gis ñu rang ay 6 heures wala 4 heures du matin ñii 3 heures du matin rang bi daal dafa metti daal mais man bi may ñëw presque 7 heures mooy laa fa egsi bi ma egsee foofu sax laa jëndee café ci bunt bi naan laajte ñu ne ma da ngay dagg ticket ñu jox ma ticket bi ak lépp ma toog di xaar jour boobu foofu laa yendu jour boobu foofu laay yendu presque sama journée yépp lekku ma naanuma ma apart kafe gi ma naan ba gisanteeg sëñ bi bi ma gisanteeg moom ma dugg expliquer ko sama mbir yépp li may dund yépp mu ne ma rab la mu ne ma rab la bi ma rab la mu daldi ne ma mun naa ko faj mu jël bind jël benn ticket bind ko jox ma ko yabal ma ci secrétaire bi ñuy faye ma dem ci kooku bi ma eggee mu ne ma quatre-vingt-dix-neuf mille la mu wax ma som bi boobu yoru ma woon liquide foofu ci saasi ma woo maire bi expliqué ko mu ne ma comme dem nga ba foofu te comme yaakaar moo la yóbbu ci moom mais jox ko rek ma daal di continuer ci banque bi retirer xaalis yi ñëw fay te li ma ci jaaxal avant mu may bindal ticket bi bi ma ko bindalee dana ma demal nga fay boo ñëwee ma dindi li nekk ci yow ndakate loolu yëpp ay xeetu naxaate la yooyu yëpp ay xeetu dóor la mais man xaw ma ci woon dara dama yaakaar ne rek boo fayee dangay dem mu dindi li nekk ci yow léegi bi ma fayee ba pare pour delluwaat ci moom ñu ne ma mënoo koo gis ma wax ba sonn ñu ne ma mënoo ko gis ñu ne ma dangay dem procédure la dangay dem faju dangay dem am na koo xam ne moo lay suul am na côté boo xam ne foofu ngay sangoo am na koo xam ne moo lay jox garab yi nga xam ne moom ngay yóbbu sa kër mais loolu yëpp ci xeetu naxaate la rekk mais nag boo bëggee wér xamoo doo def lu dul topp yoon wi ndax man bi ma ko doon jox xaalis boobu amoon yaakaar la ndax xaalis boobu aw ma ko aw ma ko yàlla xam na ni loolu dong laa dese woon ci sama compte dafa fekk ñu ma doon dugg viréel xaalis sama salaire ma jël ko jox ko ko loolu moo nekkoon ci sama compte te yaakaar rekk laa demee ak moom ndax bi ma fay dem boobu feebar bi commencé na. affaire feebar bi commencé na xaalis amul ci dëkk bi ñi doon liggéey liggéey man sama liggéey amoon na ay jafe-jafe sama sëy amoon na ay jafe-jafe damaa nekkoon ci ay jafe daal bi ma demee expliquer ko lépp mu ne ma rab moo la jàpp mu ne ma dama koy dindi léegi sa jafe-jafe yépp dañ naka tey lépp li ma wax yépp dara amu ci noonu laa ko jàppee ak moom. di dem di faju ci moom bés bu yàlla sàkk boo demee foofu nga yendu doo lekk doo naan boo xiifee da génn jënd lekk ci biti boo bëggee ndox sax laa wax problème la ndax kër yi nekk yépp dugg ñaan dañuy bañ kër goo dugg ñaan bañ yendu doo lekk doo naan boole ko coono gu metti di rang ñu lay suul tàngaay wu metti woo xam ne foo ko natt romb na fa ñu lay suul te li ñuy def yëpp dara du ci dëgg mais nag doo xam parce que sa yaakaar rekk ngay demee yaakaar moo ñu yóbbu ci moom bi ñuy dem yoruñu woon xaalis man li ma ko jox moo desoon ci sama compte mu nekk lu metti des fois nga dem ba yegg am ay jafe-jafe loo lekk mais dangay muñ yendu fa ba ngoon doo lekk après nga ñibbiwaat sa kër ñu suul la sang la nga ñibbiwaat sa kër après ma continuer di sangu di suulu ci kër sëñ bi mais mardi lay doon jeudi ak samedi léegi boo ñëwee dañ lay sang suul la am ñaari cangat yu ñu la jox buñ ko yóbbaale sa kër boo xam ne moom ngay sangoo ak moom ngay suuloo pour booy ñëwaat noonu laa ko continuer durant huit séances yi ba huit séances yi jeex ak ñëw bu metti parce que fi ma daan jógee dafa sori trop fi ma daan jógee dafa sori ndax man dëkkuma fii yépp ma koy muñ bu ma ñëwee duma lekk duma naan foofu lay yendu pour bëgg a wér rekk mais liñ may jox may sangu di ko suul yëpp maa ngi koy def comme niñ ma ko waxee mais gisuma ci changement affaire bi jaaxal na ma gisuma ci benn changement bi ma matalee ma war a am retour ci sëñ bi mais nag piège bi foofu la parce que soo matalee pour nga gis sëñ bi problème la sangu bi moom ak suulu bi dangay sangu ba dee suulu ba dee mais pour nga gisaat sëñ bi retour bi mooy problème bi piège yu foofu la parce que boo ñëwee dañ la naan dafa am nombre personne bu ñuy gis nombre personne boobu nag sens dëgg ngay am pour ñu boole la ci waaye li ci gën a neex sëñ bi ci boppam bu jëlee bu jëlee bu jëlee ñiy consulté wu ba pare du laal retour yi bu tey jii comme par exemple tey boo ñëwee nga war a am retour day consulté ba pare daal di jékki-jékki. ne daa feebar ñibbi bu consultation yi jeexee rek mu commencé di dugal affaire jubadi maanaam retour yi lay bañ a laal léegi nag consultation yi bu jeexee soo ko waxee suñ demee ba commencé rappel retour yi ñu ne sëñ bi dafa feebar wala sëñ bi dafa am urgence wala sëñ bi wala ñu ne ñu ne ñu ne day taw moom bu génnee mu ne taw bi óorul ak faj bi moom sëñ bi mooy wax de. taw bi óoru ay faj bi moom daal dañuy def façon lay bu ne pour yow mi nga xam ne dangay faju si nga découragé nga découragé bañ a ñëwati wala nga de nga gedd dem parce que am na fa ay cas yu bari yoo xam ne dañuy découragé wala ñuy gedd parce que dañoo faje ba sonn am na ñoo xam ne am nañ fa un an te am na xam ñoo xam ne am nañ fa mois am na ñoo xam ne am nañ fa quatre mois am na ñoo xam ne am nañ fa sax lu ko ëpp man def naa fa lu ëpp sax quatre mois mais dama doon jaabante dama doon jaabante heure bu ma amee temps nit ñëw ne nañ ma boole ci liste retour bi mais duñ ma ci nangoo boole may jaabante di jaabante comme joxe naa sama xaalis ba pare te bëgg naa wér bëgguma lu dul wér moo continuer di jaabante mu metti trop des fois dangay taqale paas bi des fois doo am paas des fois danga fay ñëw sax muy taw mu génn dawal kaat kaatam ñibbi bàyyi ñu fa ñu toog di xaar taw bi sëwét bu taw bi sëwétoo doo am foo jaar ndax embouteillage bi dina bëri oto yi dinañ cher des fois dangay dox ba sonn pour ut car pour mu génne la pour nga mën a jël cette place pour ñibbi ma nekkat ma ma nekk noonu di dund ak moom mu metti lool ba ca kanamu yàlla yàlla def ma am retour jour boobu ma gisante gisanteeg moom début bi sax dama yaakaaroon ne samay mbir moo dëgër ba mënumaa gisanteeg moom ku faju kay ba pare pour am retour waru mën a jafe pour nga gis ko soit dangay jëndi da il faut nga jëndaat ticket pour gis ko am na ñoo xam ne dañuy jëndaat ticket am na ñoo xam ne jënd nañ ay cinq fois ticket pour gisaat ko léegi nag moom comme moom dafa muus dafa muus nag neexul a jàpp boo duggee. moom dana wax yow baab la am nu muy wax ak yow soit dangay dugg mën na la génnal sarax sàngam nga dugg wala mën na la yow de dangaa am sens parce que am na lu nekkoon sa tànk bi am na lu la jàpp dëgg nga liggéey wala def nañ la nàngam génnal sarax sàngam nga ñëwaat moom daal noonu la lay naxee boo duggee rek mu def loola def loola benn sarax wala mën na la génneel sarax noonu daal la koy jàppoo ak nit ñi. nekk ak moom di dund moom loolu. ba yàlla def ma amaat encore ñu boolewaat ma ci retour ma gisaat ko muy sama deuxième gisaat ak moom bi ma ko gisee ma explique waat ko comme li ko expliqué première fois bi pour commencer rek daf ma ne man xàmmewuma la li ma ko wax yépp mu ne moom fàtte na loolu ma toog di wax ak moom mu ne ma ñiy xaar dafa bari demal génne sarax bi sarax bi ma la wax nga ñëwaat ma ne ko man sarax bi ma wax génne woon naa ko bi ma fi ñëwee bi ma fi mujjee woon ñëw danga ne ma naa génne sarax nàngam ak sàngam ma ñëwaat tey nga waxaat ma même sarax bi mu ne ma waa léegi yow demal yow wér nga ma ne ko wér mu ne ma waa ma ne ko man wéruma foofu laa mujjeeg moom wér nga laa mujjeeg moom wér nga ma ñëw mu ne ma wér nga ma nekk man ku ma xam sax xaw ma xam ne wéruma ndax jafe-jafe yi ma nekkoon yépp tey la gën a yokk man ku ma xool xam ne man wéruma ku ma xool xam ne rab doo nga ma jàpp ma ne ndax mën na ma delloo xaalis bi ma ko joxoon mu na ma duma ko delloo mu na ma yow ba nga dugalee sa xaalis nga ko ñàkk loolu nit ku jub dina ko def te moom moo taxaw ci benn émission mu wax ne ku mu faj wéroo nga ñëw mu delloo la sa xaalis mais bi ma waxee ak moom dana ma duma delloo dërëm dana ma mus dana ma dana ma ba nga dugalee sa xaalis la xaalis boobu ca nga ca pare mu nekk lu metti parce que joxe nga sa xaalis ba pare jotoo ko wéeroo te foofu óorul yaa ngi dem di faju am na ñoo xam ne nag dañoo am dañoo am patience ña ngay dem di faju ba tey am na ñoo xam ne moom gedd nañ dematul gis nga bu toogee télé li muy wax mooy am na ñoo xam dañuy commencé faj te duñu dellu si déedéet demeewul noonu ñay faju ña ngay dem di faju respecté seeni rendez-vous man durant huit séances yi ma def amul benn boo xam ne ni jot na dew ma dama ko respecté ndax fajar fa la may fekk ndax man fi ma dëkk dafa sori cette place saay jël su may ñëw fajar fa la ma fekk cinq heures du matin laay jóge fi ma dëkk imagineel loolu nit ki jël sax xaalis ne dalay fay dale dalay faj te du la faj nga dund loolu mu metti trop nga ñàkk doole parce que tey jii bu doon man ku am doole laa wala ma yore xaalis wala ma tekki dara ci dëkk bi duma def loolu ñi mu koy def rek mooy ñu ñàkk doole ñi ñi nga xam ne amuñu dara ñi nga xam ne bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu añee duñu reer wala bu ñu reere duñu njëkki wala li ñu yor dañ koy taqale pour joxe ko man xaalis bi ma ko jox aw ma ko dama koo taqale dama ko dajale denc ko sama kont noonu laa ko yëkkatee joxe ko te mujjul fenn perte naa xaalis mujjul fenn boo demee day wax ba wër la xam nga ne loolu metti na te tegu ko fenn te nit ñi muy nax bari nañ ndax du man kese am na ci ay kaay yu baree baree baree bari ñoo xam ni lu metti li ma dund moom lañ dund am na ñoo xam ne bu ñuy ñëw. mënuñoo dox dañ leen di gàddu noonu lañ koy dundee ak ñeneen ñoo xam ne ku ci nekk daal ak li ngay faju foofu ku fa nekk ñi feebar yi bokkul ku nekk ak sa feebar ku nekk ak li la tax a jóg mais man mi nga xam ne damay faj rab su ma demee ba leneen dugg fa lu may wax du ma gën a lonku damay gën a lonku parce que aw ma doole aw ma doole aw ma ku ma jàppale aw ma ku ma dimbali loolu ma ko jox damaa dajale woon ba denc ko te amoon na leneen lu ma ci bëggoon. mais bëgg faju ak bëgg wér moo tax ma jox ko ko lekk na sama xaalis te faju ma te mujjul fenn mujjul fenn te ni ma koy defee noonu la koy defee yeneen doomu aadama moo tax bu la ma dal bëgguma mu dal ñeneen ndax dajale sa xaalis nit ñëw jël ko lekk ko dafa metti ci xol ndax xaalis dafa sax ci xol te ñun dañuy taaba taaba rek amuñu dara dañuy taaba taaba. moo tax la ma dal nag bëgguma mu dal keneen ndax xaalis dafa sax ci xol te sëñ Ablaye Diop xaalis ñi muy nax dafa bari ñi muy nax bari na lool heure bu ma julliwaan nag dama daan ñaan yàlla yàlla na ko yàlla ko yàlla àtte ak ñun ndax ni ñu amee suñu xaalis metti na ni ko jëlee yomb na lool te mujjul fenn. ñoo ngi nii